fi koy tambalé dañuy dem feulé seet ji lii nga xamanténi moy prix bi nga xamanténi ñu ko jagleel ki nga xamanténi moy son excellence le président de la république Macky Sall

sur ci innovation ak industrialisation fi ci Afrique ba remise au troisième édition bi avons prix président de la République Macky Sall ci recherche bi ñu conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur bi nga célébré nañu surtout ci impulsé ay qualitatif le la yo xamanteni mën ta ñàkk jëm ci amélioration durable bi nga xamanteni mo moo ci écosystème jëm ci recherche bi nga xamanteni ci walu Afrique les luy signification bi nga xamanteni remise de l'oréal bi nga xamanteni moy troisième édition ñu dippee prix bi son excellence le président de la république Macky Sall ginnaw lolu nak mi ngi xamal ni que pour recherche CAMES bi lepp lo xamanteni nek na ci coursam ginnaw allocution yi nga xamanteni def nako mi ngi ci yoko muy occasion la bo xamanteni mon président de la république Macky Sall mi ngi kii nga xamante ni mooy ay professeur ginnaaw animé nañu li nga xamante ni mooy Daniel le Léwu Kofi ak kii nga xamante ni mooy Rebecca Rachel ak kii nga xamante ni mooy Assa ak Henri Ba ñii ay coordinateur projet thématique bi nga xamante ni dafa jëm ci lépp loo xamante ni maanaam saytu la ànd ak ay collaborateurs yoo xam ne dafa primé at bi muy benn lieu boo xamante ni dafa war a saluer ba noppi daal di magnifier mooy place bi nga xamante ni muy place primordiale ginnaaw rôle bu fondamental bi nga xamante ni CAMES jël na ko ci wàllu enseignement supérieur ba daal di sukkandiku ci recherche yi nga xamante ni am na ci Afrique ba tey suñu sukkandikoo ci kii nga xamante ni mooy président la république mi ngi invité ñooñu nga xamante ni ñoo war profiter pleinement jëm ci biennale bi pour nga établir benn partenariat boo xamante ni dañu war réaliser ñoom ñëpp ñu boole seen doole ginnaaw bi ñu avancé ci ay signification yoo xamante ni dafay soxal li nga xamante ni mooy continent africain li ngeen mën a indil daal muy li nga xamante ni recherche CAMES bi di prix bi muy troisième édition bi ñi nga xamante ni mooy turu lauréat yi dévoilé nañ leen waaye nañ jàpp ni daal atum ren bi prix bi ñu ko décerné kii nga xamante ni président de la République du Sénégal son excellence monsieur market. <laughs>